duma ko tudd yëpp yëpp waaye be bokk na ci benn rek ku wax ab ndaam-ndaam wax Xaaj Malik Si xam ne ci ñun la bokk loolu sunu ndam la ñun sëñ euh, Alxaaj Mansour ñëw dugg ci biir bokk na ci itam meneen mooy eh, dafa am maanaam symbole bi am ci jataay bi maanaam sëñ Omar jël kii nga xam ne Alxaaj Mansour la te mënoon na ko def ci ñeneen ñu baree bari ci ay mbokkam ci ay sëriñam nga xam ne loolu dafay dëkkalaat njàngaleem Maulana Sidi Hadj Malick si njàngaleem Cheikh Abdoulahi Niass njàngaleem euh, Cheikh Ahmadou Khadim ak njàngaleem ñi nga xamante ni ñoo ŋànk diine ji ñoo ko téye ñoo ko samp ñoo ko suuxat ba léegi Sénégal doon mën nañu wax modèle ci stabilité ci jàmm ci cohésion sociale ci biir maanaam îlot boo xam ne ci li ko wër ci Afrique gis ngeen ni mu mel nga xam ne mën naa jàpp ne composante yi taal réew yëpp yëpp te nekk ci yeneen réew yi daje na ci Sénégal te lépp jàmm am fi te ñii ñoo ko waral kon loolu itam bokk na ci li ma ci marqué bokk na ci li ma ci marqué itam mooy ñi doon ñi doon ñi doon yëkkati fii kàddu yi yéen nu ngeen koy tuddee ay ay gàmmkat ñun ñu koy wax euh, jàngkat ñun murid yi lépp benn lañ ah yëpp benn la waa ah, ah, xam nga maanaam terminologie day lu am solo ndax am na foo xam soo ko fexee rek ñu comprendre ko su doon foo mën dama naan jàngkat rek mu de waaye kon nañu wax gàmmkat yi fekk si leen comme que ñun doomi ndey ak doomi baay waaye li ma ci gën a jaaxal itam mooy man lu ma neex dama bëgg identité réew mi di feeñ te léeg-léeg damay gis bi ngeen di jàng li ñuy wax imaala ngeen di maanaam euh, yaa saxiq hadi axra dunya bi daa imatin dunya ni ngeen ko waxee dunya gi te mënoon ko wax dunya te fii ne moo not ci ñun ci Sénégal seetlu leen leen sëñ bi madhab maliki aqida ashariya riwayatu warsha an naafi moo fi sii woon fi mu toll warsha an naafi xoolal ñi génn ñi génn dem ci concours récital coran yëpp yëpp yëpp koo gis muy jàng jóge Sénégal warsha an naafi lañ lañ yaakaar moom la jàng mais Hafs an Asim lay jàng bu ci mujj mooy sunu mbokk mi Cheikh Diop mi nga xam ne mi ngi jóge daara Xaadim Njaay Rachid Xaadim Njaay Rachid sunu kii la sunu nu ñu ko waxee zamil la jàngandoo nañ xam-xam fi mu ñoom dañoo juum lañ ko bindal warsh an naafi lañ ko bindal ndax xam nañu Sénégal la jóge ñu jàkkaar moom la jàng mu ñëw yëkkati xafs yëpp baax waaye man fi mu doon damaa ngoy ci warsh an naafi ni ma ngooyee ci aqida ashariya ak fiq maliki noonu laa ci ngooyee moo tax fi mu doon nii beneen contentement la ci loolu wax jaagi waa ji gudd de maa ngi tuub dëkk baax léegi nag sunu maam alxaaji Mansour euh, ku bokk Touba surtout ku bokk Daaru Qudus dafa la dafa lay dafa lay kii dafa lay kii daal dafa am lu muy def ci yow dafa bari ndax digganteem ak euh, Cheikh Mouhamadou Moustapha ginnaaw bi sëñ Cheikh Gaynde Fatma teraanga yu baree bari ñu seq ko ba am sax ñoo xam ne dañ ko koo la ci kër sëñ Modou Moustapha ak itam nga xool moom ni mu taxawee ma beneen bi itam mooy maanaam ku demee ne alxaaji Malick Maodo Touré jarbaatam ba te mu doo doon doonoon xaritub sëñ Cheikh Gaynde Fatma xaritub sama turandoo sama sëriñ sëñ Mbàkke soxna ma gis ko ba tay mu ñëw Taïf euh, mu a na benn marché boo xam ne moom la defal sëñ Cheikh Gaynde Fatma maanaam gis nga nii daanaka dunduk sëñ Cheikh daf ko cee boole réalisation ci côté yu ne socio-économique wàllum culturel wàllum intellectuel lépp da ko boole ci biir nga xam ne kon rafetal googu ngeen di wax da cee am sulul dara itam xam ngeen ne am na bàjjanam boo xam ne maanaam sëñ Modou saa ko mu soxna Xafsatu soxna Xafsatu Touré moo jur ki ñuy wax sëñ Ibra Xafsatu waaw mm, doomi sëñ sëñ tati sëñ Modou Suwaala yooyu yëpp nag su dajee kon su ma fi ñëwee bokk Daarul Quddus te itam ma yàgg a xeñu mag magi lislaam yi e, fu mu mënti doon murit ak tiijaan ak laa ci yamale kon dafa mel ne jataay bii day lu ma lu ma loo xamante ni suñu leen ma joxe kàddu ngir barkeelu danaa barkeelu kon bismillah ñu barkeelu benn dañuy wax lu am solo te ñun wolof yàlla dañu dimbali ñu dégg alquran te ñu bare bare bàyyiwuñ ci xel wal baladu tayibu yaxruju nabatuhu bi idni rabbihi gis nga am na ñoo xam ci wolof yi li ñu koy firee maanaam Euh, soxna su baax ngir nga am doom ju baax wal baladu bu ñu ne la soxna su baax day yaxruju nabaatuhu doom ja dana génn te yiw bi idni rabbi su neexee yàlla nga xam ne bokk na ci condition yi tax maanaam nga mën a tànn doom ju baax mooy nga tànn ndey ja waaye itam nga tànn baay ba ida jaakum man tardawna xuluqahu wa diinahu fa zawijuhu tunkaxul maratu li arbaatin li arbain boobu ca mujj gi mu ne fa bi daati diini taribat yi daal comme ni ñuy tànn ñaar yëpp la ñu tànn léegi na nga xool soxna Safiyatu ak si Mawlana Seydi Hadji Malick kon foofu ku fa ku fa ku fa euh, gimmee maanaam euh, mu tëddi euh, dama wuy yan maanaam ci ci deret ji ma am nga opportunité à soixante quinze pour cent ci baax à quatre vingt pour cent sax la jëlee su ñëwaatee nag lu gaar lay doon léegi nag nga ñëwaat beneen te itam loolu fi mu doon sunu borom dafa am ay firnde yu ci jox. waxul ne inna allaha safa aadama wa nuuxa wa ala ibrahima wa ala imrana ala alaalamin aal aal la wax waxut nuux waxut ibrahima déedéet yàlla tànn na njabootum ñii waxaat ne wa laqad aatayna ala ibrahima alkitaba walxikmata wa aataynahum mulkan azima aal la wax nga gis nag ca la ko kii wa ibtala ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna inni jaa'iluka linnaasi imama qaala wa min dhurriyati mu ne ko yow man maa lay jiit jël yëkkati la teg la ci kaw nit ñi mu ne ko yàlla may ma ko may ma ko sama njaboot yàlla ne ko d'accord nañ a ah, une exception laa yanaalu ahdi zalimin ku ca génn fa nga jaaroon bokkatoo ci mooy yàlla moom nit kenn nit dana ko tànn defar ruuxam ba sax defar deretam moo laa na si Hadj Mansour mi ci la bokk moo tax fi mu toll nii ñu mel noonu lu ñu góor góor góor lu mu tuuti tuuti dañuy egg ca kaw ñele ndax ñooñu dañ leen a dañ leen a tungoom maanaam dafa mel ne si si Mawlana Xaaji Malick si comme ni mu doon wax la moo tax ma gën laa di garab daf ko tungoom képp na koo mu sub waaye moom laay ñëw nii waaye moytul waxal moom ba mu wàccee la nga seet maanaam ndaama lu mel ne man du ma diw njool su fekkee diw njool moo ko tungoom man damay seen lu mu seenut su ma yaakaaree nag sama man-man la ba wax ko nangam nangam damay wàcce kon non maanaam ño ah musiba am yàlla ci yàlla musal ah, du doo gis dara ñun nag yàlla nañ ñu tungoom ñu jëm ca kaw moom la suñu xalifa wax léegi walladina amanu wattabaatuhum durriyatuhum bi imanin alxaqna bihim durriyatahum lu mu ci rek wa ma alatnaahum min amalihim min shay nga sëñ bi eh, nañu bàyyi waat xel mag ñi buñ ñëw bëgg a eh, déconstruire eh, sax démolir su la neexee li fi ne woon ndax mooy base bi nga xamante ni moo ñu taawu suñ ko bëggee dindi lépp day yàqu mag ñooñu sunu borom waxal boppam ne walladina amanu wattabaatuhum dhurriyatuhum bi imaanin gis nga la ñu farloo euh, soo gisee ci alquran am na fu ñu waxe naan ca suratu rahman wa liman xaafa maqaama rabbihi jannataan wax ko jannataan yooyu fii ne bokkut ak jannataan yi ci des wa min dunihima jannataan ndax soo gisee jannataan yi lu mu wax fihima aynaani tajriyaan day daw fihima min kulli faakihatin zawjaan maanaam loo xalaat ci foyteef rek am na ñaar ñii dañ ne luy génn hiver la ak luy génn été ñii ne bu tooy la bu kii ñu ci wax lu ne daal ñii ne bu saf sàpp la ak bu xaw a sajji waaye la ca des wa a duunihimaa jannataan am na bu xaw a gën a suufee moo tax fii ma ay naan na daaxataan nii lay def bokkute bi nga xam ne day daw fu mu toll euh, fii ma faakihatun wa naxlun wa rummaan ñett la tudd waaye teewul gis nga ñu njëkk ñële ngay gis ñoom mooy borom awliyaa ullaahi yi al aarifuuna al ulamaa ci li ñu xam ñoo ñii nag comme Seydina Haaji Malick ku demee sëñ Mansour ak ñu mel noonu ñoo ñu fa la nga leen di yàlla di may ngir seenu góorgóorlu ak itam ngëneelu yàlla lu mu leen tànnoon naka jekk fi mu toll nii képp ku nekk ca gannaaw wattabaatuhum zurriyatuhum bi imaan waxuñu sax nga fournir même effort bañ defoon ndax yàlla moo yemalewu cër yi même waaye soo góor góorgóorloo topp ca ñoom sa kam kàttan rek alxaq naa bihim zurriyatihim yàlla nee na man maa leen di jël fa seen maam ya nekkoon la mi kawe kawe mu ñëw aj leen man maa leen teg foofa ngir seeni maam wa maa alatnaahum min amalihim min shay te kat ñii duma laal dara ci seen jëf dafa am benn waay boo xam ne maa moom dañu ci doon wax ba nga ko waxee ba noppi da ko xaw a weddi eh, ca ginnaaw mu ne ma day biig dama gis Seydina Abdullah ibn Amr Abdullah ibn Omar ibn Xataab mu ne da ko gént guddi nee na mu gis ko ci àjjana mu ne ko gis nga Omar ibn Xataab laa la wax de saa baay miir bii moo dox suñu diggante mu daal dama kon yow li nga waxoon doon naa ko gëm ma nga ah, ar ruya saaliha de am na lu ci yéen saa la waxoon waaye li ma bëgg a junj foofu rek mooy mag ñi ci boppam maanaam ña topp ci ñoom rek góor góorgóorlu tuut rek la ca des ñoom ñoo lay yàlla moo leen di yéege ci seen daraja ñoom surtout da ngeen fi tuddal loo am solo mooy zikr man naka jëkk dama daal di gis sëñ Mansour surtout ci zikr tudd yàlla te xam nga ku tudd yàlla fu ne fàtte woo ko ku tudd yàlla yàllaa ngi teew sa xol yàlla nee na maa dakarani fii mala in illa dakartuhu fii mala in xayr minhu fu mbooloo mu ma tuddee ma tudd ko ci mbooloo mu ko gën léegi nag da xool koo xam ne fu mu toll mi ngi ci tudd yàlla fu mu to wamhad ilayhi bi qalbin laa yushghilu laa laa yushghiluhu an il awaiqi shay'un jalla maanaam kon moom nga xam ne li muy digle foo toll sam sa xol bi na ji yàlla te dox jëm ci yàlla coow li coow egg ci yàlla du barab Euh, sama maam ju baax sëñ Modou Lo Mbéré daa wax ne soo mënee waat ne yaa nga ca woon wa te dootoo ko wàcc mën ngaa waat ne egg nga waaye maanaam wéetali ko yàlla foo toll ci tudd yàlla ci tudd yàlla kon su boobaa maanaam yàgg yàlla yéen a jaxasoo jaxasoo mooy ne comme ni ko xadisu xudsi boobu waxoon ma euh, maanaam wama yadalu abdi yataqarab ilay bi nawafil xata ahbabtuhu ba fa mujje kuntu samaahu alladi yasmaahu bi ak lu mel noonu kon loolu rek day doy sëkk ci ne maanaam lépp lu ñu ko waxal ci karaama ci xar baax weesu na ko te lam la ko yàlla may loolu du ci dara